bismillahi irrahmani irrahim hadiyatu sayidati maryaama bu sajaratuley dikk nan si ñépp dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara digal nga addina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaama jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara soxna baalig maam bu zambaañu jaara am nga tawfeex ku gën fa balu tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci gi fi jaarawi bu sa baale manoon ci kër man ci jaamu fu mu jaar ni ñay mu roy soxna jaara gëm na yàlla ak yónneen ba xam Seyxi Bamba xam na boppam bafar mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër daana jàng ak liggéey ba doon soxna jaara asalaamaaleykum mbokki Sénégal yëpp ñu ngi nuyu ñëpp euh, di leen xamal ni tey yéen a ngi fii kër Serigne Mamor mu sëriñ Serigne Mountakha Bassirou ci màggaluk soxna jaara Bousso yi ñuy def amale fii ci Porokhane ñu ànd ceeg njabootuk Serigne Mamor gi tàmbalee ci waa daayira Fatxul Xafaar bu cees ci jëwriñal Ahmadul Baaxum ak mbooloo yi nga xamante ni ànd nañ ci yëpp mi mbooloom Touba mbooloom Kaolack mbooloom Saloum ak mbooloom fépp foo xamante ni ci Sénégal nit jóge na fa ngir ñëw ànd kook sëriñ bi ñu liggéeyal sëriñ Touba ci bisu Soxna Jaara bi liggéey bi nag ñu ngi koy defee na ko sëriñ Touba santaane ci jàng arxuraan jàng xasida ak bendel mbokkum mboolem mbokkum taalibe mu fi teew ñu ñaan suñ suñ borom mu nangul ñu te fawal faw xal ñu ko te faw fulal ñu ko lu baree baree baree bari ci loolee nag yaakaar naa dañ cee ànd ak sunu jëwriñ muy sëriñ jëwriñ Ahmadou baaxum mi nga xamante ni moom mooy jëwriñu kër gi euh, di jëwriñu sëriñ Mame ñu jox ko ci moom mu jox ci ay kàddu seede. asalaamaaleykum wa rahmatullah kon noo ngi tënk ci kàddu yi gàtt rek moo di nun daal sunu dund gi yëpp dañ koo fas yéene lëggéeyal sëriñ Touba laxasaayu topp sunu gannaaw jëwriñ ji euh, ba fa kanamu sëriñ Touba. nan nammunu sunu dund gi leneen lu dul liggéeyal sëriñ Touba buñ fi mee def leneen lu dul liggéeyal sëriñ Touba nin ko ko ñaane yàlla nañ fi sëriñ Touba gaaw jële wasalaamaaleykum wa rahmatullah